ma ñëwee ci courant bi yàlla dogal ma jóge HLM Saara sama kër papa ma ne xaaral ma tuxu sama kër parce que location dafa xaw a métti ma ñëwee fii j'ai trouvé que nit courant amu fi ma dem wut sama solaire di ko taal mais ci biir dëkk bi ma xam ni vraiment ñi ma dëkkal jot na vraiment ñu wutal leen courant parce que man soxla naa courant mais xëy na doole yi yamuñu yàlla dogal ma ciy dox dox bi sax xawut sori ba un euh, bonjour rek Cheikh Fall c'est un ami ñoo bokk benn koñ tubalaay suma goro ma jékki-jékki Cheikh Fall invité ma ne ma ah Ibrahima man de dama am euh, benn accueil bu may def à Kawsara damaa bëggoon nga ñëw fa ma ne ko ñu dinaa bàyyi sama yite yëpp ñëw bi yàlla dogalee ma dem foofu Cheikh Fall téye sama loxo ak tuubalaay ñëw ba ci Pape Demba bi tey ne ma nuyu ko ma nuyu Pape Demba ñu waxtaan ma ne ko ah man de am na loo xam ne nii vraiment bëgg naa ko suma quartier. li may wax nii ça fait même pas 15 jours ah bëgg naa ko sama quartier mu ne mii lan ma ne ko man de courant moo ma ñor wax dëgg fa yàlla. parce que vraiment koñ ba ma dëkk lëndëm na te man maa leen ni leeralal sax te loolu dafa metti bëgg naa nga dox ci parce que dégg na yaangi dimbalé doom doomu té man kumu dimbal rek la soxla. parce que dimbalé ma mooy dimbalé quartier bi ma dëkkal te quartier bi ma dëkkal xam naa ne amoon ma teg man amna naa fu ma leen teg te doomu aadama yi leen dimbalee rek ya leen mom mu ma loolu amul ben problème automatiquement il m'a mis un rapport avec euh, Cheikh Mbaye Cheikh maa ngi lay gërëm. bu ma monsieur bi après mu mu def ma un rapport avec Cheikh Cheikh top ci affaire bi ma ne ko man de vraiment bëgg naa recevoir monsieur Bitey tey ci suma quartier. mais na ma dimbalee ba yalla dogal courant bi ñëw ma defal ko accueil yalla mu dara tëwul demb demb demb la sama courant ñëw ak sama dëkkandoo yi ak léegi tamit ma nekk ci quartier bi. heure bu ma jullee fajar ci jàkka ji damay def benn réunion benn briefing laa def rek ak imam ak ñi fa nekk ñëpp ne leen courant bi dina ñëw damaa bëgg na ngeen jàpp ci parce que kii indi courant bi Macky Sall la àndal te ñun ku ànd ak Macky Sall dimbali ñu Macky Sall la ñuy votel ñun. je pense que li nga am fii li nga am fii euh, bu ko xeeb mais am na leen di dolliku man je sais très bien que ni ama ci ñoo xamee sax ñëwuñu mais jàppal ni ñooñu Macky Sall la ñuy votel li nga def fii leer na ma yow yaa ko def bi ñu reddagut poto sampaguñu poto ñaanaguñu poto la responsable yëpp génnoon ku nekk dem si sa responsable mu ne mana mana mana mana bés bi ñuy ñëw sa kër boobu ñu ngi doog a lotiser quartier nga nañu soobee suñu borom suñu suñu borom nanguwul lu mu maye woon da ngeen am de fii la ko jaaree sa sama loxo bu sew bi bon nag monsieur Biteye lu tax ma jël parole mooy jaañ ma sant la gërëm la fii nga toog nii ñëwoon nañ ñu samp ñetti comité mu ngi la yi la ak Ndeye Fatou Sall mu ngi la ñette comité moom laa la fi sampaloon wante neexoon naa leen kuy politique doo yàkkamti Pape Demba ñëpp a ko soxla bu ngeen defee ndànk rek dana ñëw si yéen ni mu financé polga mu financé ko boori kër yaro dana financé noonu yéen séeréer yi ba ngeen kontaan loolu wax naa ko fii den sooba yàlla yéen waa Fane Ndiaye dana leen ko defal nu mu defal gox yëpp def ko mim saa def ko si saara jama gén fu mu toll nii c'est le Sénégal de tous les possibles Moi, le président Macky le Sénégal de tous les possibles je tax ngeen mun ñëw laaj courant en 10 jours courant bi c'est ça le Sénégal de tous les possibles c'est ça le Sénégal du président Macky Sall le Sénégal de tous les possibles Le le président Senghor dan pour défal ko Sénégal président Macky Sall si la nek président Macky euh, le président Abdou Diouf Donne bébé pour Sénégal le président Macky Sall donne defar Le président Ablaye Wad donne bébé pour Sénégal le président Macky Sall dit dox parce que damay si le président Senghor nous a donné un état si le président Diouf nous a donné une administration solide et performante si le président Ablaï Wade nous a montré que c'est encore possible de développer ce pays, le président Macky Sall est véritablement en train de construire ce pays, est en train de construire l'émergence de ce pays. C'est ça le président Macky Sall. Et loolu moo tax ñu jog fas yéene xar suñu tànk toubey si nous non nga xamné ne nako mu rafet mu ko Sénégal ñu ne dañ koy dox ànd ak ko c'est parce que le président Macky Sall dès le début après avoir fait le tour du Sénégal, a dit comme priorité l'équité territoriale. L'équité territoriale dans tous les sens du terme. après avoir résolu le problème de la crise énergétique, pour ceux qui en ont, le président a dit, ceux qui n'en ont pas encore et qui représentaient plus de la moitié des Sénégalais ont le droit également à l'électricité. Nous, nous devons courant moi bu mu mu programme d'électrification rurale je veux accès universel en 2025. mais également bu développer développer le milieu urbain à l'électricité il a développé également euh, l'accès à l'électricité dans les zones urbaines et périurbaines les zones périurbaines c'est lan da ngay capitale bu melni Kaolack la courant nous avons trouvé un quartiers humain courant et ce programme quand il l'a exposé aux Américains dans le cadre du MCC les Américains ont mobilisé 600 millions de dollars parce que le programme était crédible le leadership était là la vision était claire et il a été défendu par les techniciens du Sénégal et les Américains ont mis 600 millions de dollars pour régler des problèmes de cette nature donc d'ici peu de temps la KFW dugal na si xaalisam ah la la l' agence française de développement dugal na si xaalisam d'ici peu de temps di ngeen gis nu ñu taalee Nimzat et yaakaar naa ne pël ga peu dina takk parce que nous sommes dans le cœur du Sénégal de tous les possibles le Sénégal du président Macky Sall léegi nag yaakaar naa ne ñëpp wax nañ ko Kaolack lañ Kaolack boo xam ne de tous les chefs religieux Kaolack bu Valdiodio Ndiaye Kaolak qui savait dire non, mais Kaolak également qui s'est dit oui chaque fois que son intérêt est là, chaque fois qu'on doit sauvegarder l'intérêt de Kaolak. C'est ce Kaolak-là debout qui a dit oui au président Macky Sall pour une victoire large et incontestable au soir du 24 février. loolu lañ leen président Macky Sall deselatuñu dara ndox maa ngi courant baa dem fu a bërki démb kaw sara fàll la won, tay fi la Nimzaat après demain tey jii nii sax taal nañ encore mbite yeen wàllo yaakaar naa ne président Macky Sall kaw ne Sénégal yëpp dina ko taal loolu mooy mbébétam léegi nag ñun kenn mosuñu gën a gore Kaolack loolu lañ ko xamee lii mu ñu won ak fii mu ñu teg dinañ ko won ñun aussi dinañ ko fayal ba falaat ko